Euh, euh, mu wax ñu euh, audition bi naka la demee je vous remercie en français ou en wolof. la langue coloniale d'accord euh, donc euh, c'est avec beaucoup de d'affliction je devrais dire que nous avons vécu le retour en prison de monsieur Pape Alé parce que le juge euh, d'instruction, suivant à cela les réquisitions du procureur de la République, a décidé donc de révoquer la mesure de contrôle judiciaire et en conséquence, il a placé M. Nian euh, sous mandat de dépôt. Qu'est-ce qu'on lui Évidemment, quand on parle de révocation du contrôle judiciaire, euh, le procureur de la République a estimé que M. Pape Alenia avait violé les conditions de ce contrôle judiciaire. Bon, je dois dire d'abord que en plus de trois décennies de pratique, c'est bien la toute première fois personnellement que j'assiste à une telle chose, la révocation d'un contrôle judiciaire. Mais je pense également que le BAB, le BABA de la procédure est telle que si le juge d'instruction, qui est le maître de la procédure, prend une telle mesure, soit pour euh, durcir un contrôle judiciaire, soit pour l'alléger, c'est une mesure qui lui est propre, qui, entre dans le cadre de son impérium, c'est-à-dire de sa souveraineté. Le procureur a beaucoup de pouvoirs, notamment il peut requérir euh, l'ouverture d'une information et saisir à cet effet un juge d'instruction, dans le cas précis de M. Pape Alénian, puisqu'il est de diffusion de fausses nouvelles, le procureur de la République a le pouvoir qui résulte des dispositions de l'article 139 du Code de procédure pénale de le placement en détention. Et si l'inculpé demande sa mise en liberté provisoire, le procureur a le pouvoir de s'y la, la, demande devient irrecevable. Et du coup, le juge d'instruction a les mains liées. Ça, c'est pour la liberté. Maintenant, quand il s'agit du contrôle judiciaire, parce que nous, quand euh, il y a quelques jours, la demande a été faite pour Pape Allais, le, le, le, le, juge a accepté parce que le procureur lui a donné libre cours en ne s'opposant pas. Et le juge a mis en conséquence Pape Allais en liberté provisoire je le signale le 14 décembre, aux conditions suivantes. D'abord, Pape Allais devait remettre son passeport une semaine jour pour jour, au plus tard après le 14, donc demain. Il n'a même pas eu le temps de le faire. Le euh, pape Allais devait était interdit de quitter le territoire national jusqu'à l'intervention d'une décision de justice sur cette affaire. On interdisait à Pape Allais de communiquer sur cette affaire, notamment sur l'affaire qui lui vaut son inculpation. que ce soit euh, sur les réseaux classiques ou les réseaux sociaux modernes. Voilà, les conditions étaient à ce point claires que vraiment on ne saurait y insister. Et tout le monde a vu que Pape Allé s'est attaché scrupuleusement à respecter ces conditions. Et les deux communications qu'on lui reproche, l'une sur le lien de M. Mola Morgan, je crois, et l'autre sur un post Facebook qu'il a lui-même écrit. Mais dans son euh, intervention au niveau du live de monsieur Mola Morgan, mais à plusieurs reprises, comme une rengaine s'est revenue, il dit je ne, peux, je ne parlerai pas du dossier. Ça, vraiment, on peut lui faire euh, reconnaître cela. Et deuxièmement, dans le dossier, euh, le poste qu'on lui reproche, il est fait état euh, du directeur général de la police nationale. Bon, à ce niveau, techniquement, comme cela ne fait pas partie du dossier, Le procureur a le pouvoir que lui donne la loi. Ça, c'est l'article 171 du, de procédure pénale. Mais de saisir le, à nouveau le juge d'un nouveau réquisitoire pour lui dire de peut-être poursuivre sur le fait que directeur de la police judiciaire est, est Mais, mais ça rapport avec le fait pour le procureur de se lever. Euh, c'est un excès de pouvoir manifeste, c'est un abus de droit, euh, c'est une voie de fait. pour procureur ne peut pas interférer dans le cours de l'instruction. Et ça, le juge ne devait pas l'accepter. D'ailleurs, il y a eu un débat donc, très long, très vigoureux sur cette question. Et d'accord parti, le juge a dit qu'effectivement, c'est une question à laquelle il serait bien que la cour, chambre d'accusation saisie puisse donner une réponse. Et à cet effet, nous allons, parce que nous étions là, maître Dembosire Bacheli, maître Amadou et a assisté Monsieur Niang dans une ambiance bonne enfant comme d'habitude. Monsieur Niang a été très courtois, le juge euh, également. Et vraiment, il n'y a pas de problème. Je pense que sur le plan du droit, on pourra être départagé. Cela dit, euh, il ne faut pas dramatiser la situation, puisque Pape Alégnan, en tant qu'inculpé, garde l'intégralité de ses droits et il bénéficie de la présomption d'innocence. Et surtout, à tout stade de la procédure, il peut demander la mise en liberté provisoire. Donc dès aujourd'hui, nous pouvons saisir le juge. Nous allons le faire aujourd'hui ou demain. Et si le juge euh, l'estime nécessaire, il peut assortir sa décision du contrôle judiciaire. Euh, soit dit en passant, moi depuis hier, je lui dis, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais rappelez-vous que les Sénégalais ont consenti un lourd sacrifice. Maintenant, nous, sommes, euh, nous disposons du bracelet Je pense que c'est le moment de l'appliquer, de l'utiliser avec M. Papalénian. On sait que sa santé est fragile. Euh, on sait qu'il a vécu des moments assez durs avec cette grève de la faim qu'il a observée, avec euh, toute la motivation nécessaire. Ça a fait les dégâts que ça a fait. Et maintenant, vraiment, je pense que ce n'était vraiment pas opportun du tout de le placer en détention. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, c'est un jour très triste par rapport à cette situation. Vous avez Je vous remercie. Non, vous savez, quand les gens viennent comme ça, on peut dire pour la première fois, parce qu'ils viennent d'être placés sous mandat dépôt. sa destination tout de suite, c'est Rebus. Mais disons que c'est un camp de transit. Nous avons bon espoir que de là, il va être euh, euh, dirigé euh, de nouveau au pénitencier de, de, de C'est à voir. nga tënkal ñu ko rek ci wolof. bon lu ma bëggoon wax ci wolof mooy njaqare ak bi ñu am tey ci di juge bi delloo Pape Alé Niang kaso parce que procureur daf moo ko laaj li ñuy wax mesure euh, contrôle judiciaire bi mu jëloon moom daf leen ci war donc respecté wul liñ ko tegoon donc nañ ko delloo kaso évidemment metti nañu parce que d'abord kenn mësul gis nit ki nga xam ne le 14 bii passé mooy fukki fan ak ñeent lañ ko may liberté provisoire tey ji ñaar fukki fan le 20 ñu ne ko dellul kaso ñun personnellement ci li ñuy liggéey yëngu liggéey bi ñu yëngu nii mësuñu ko gis avocat yi ko gis de lu néew la euh, juge bi ci boppam sax maa ngi ko doon tooñ ni ko est-ce que yow lii mas ko gis mu ne waaw man mës naa ko gis benn yoon ndax dal na ma ak benn waay mais pour te dire lu raar la bo li ci metti mbir bi mooy juge bi defu ko ci coobreem procureur moo ko nee def ko or procureur sañ-sañ amu ko pour toppatoo contrôle judiciaire u nit procureur ci dossier wu Pape Alé Niang ñëpp xam ñu am na ci doole trop parce que article 139 biy gérer bu code procédure pénale buy gérer affaire u diffusion de fausses nouvelles muy article 255 code pénal bi ñu toppee Pape Alé article dafa ne bu ñu toppee nit ci loolu comme ni ñuy toppee nit ci délit ak crime yi nga xam ni moo nekk entre article 56 à 100 du code pénal à chaque fois procureur waxu tëj moom moo ko moom maanaam bu ñuy tëj nit ki moom mooy ne tëj leen bu ñu koy libéré booy ne libéré leen. nit ki su demandé liberté te procureur d'accord juge bi amul sañ-sañ sax xool demande boobu day ne demande irrecevable loolu dëgg la mais contrôle judiciaire dafa doon lu ñu may juge bi maanaam maa ngi lay bàyyi bàyyi ndëgëndiku mais danaa teg ci sa ndodd ay conditions yi nga xam ne il faut nga respecté ko maanaam ci kaw na nga ko indi comme tey la 14 may nañ la nga dem fii léegi bés bi dellu si le 21 maanaam suba na nga indi sa passeport ñu téye ko deuxième bi amoo sañ-sañ génn Sénégal frontières yi tant que décision de justice amul. évidemment loolu suñ la ko waxee mën na am boo bëggee génn nga ñaan permission juge bi mën na la may jox la sa passeport nga dem ñëwaat. troisième bi mooy mbir bi ñuy atte nii bëgguma nga wax ci fenn lu ci jëm lu am relation ak dossier bi maanaam ci réseaux sociaux yi. wala ci presse bi journaux télévision bul ci wax Pape Alé defe naa respecté na loolu bon condition wu contrôle judiciaire ñëpp koy respecté gis nañ fi ay kilifa yu mag yi nekk contrôle judiciaire ils font tout pour respecter ça léeg-léeg sax ñu wax day fekk ni ki leen tuumaal mu ngi wax ko maanaam loolu yoon may na la nga tontu parce que droit de la défense dafa am pour ñëpp mais donc cela dit ci kaw Pape Alé donc regretté nañu li nga xam ni procureur moo jël décision bi parce que yoonam newu ci di wax na ko lien Pape euh, Pape Alé bu mu génnee wax na ci chaîne YouTube bu Mola Morgan joxe na lien bi tel lien tel jour wax na waxul nag lu mu wax mais naa loolu dafa mel ni su waxee foofu rek euh, maanaam violé na condition yi pourtant euh, Pape Alé wax na à plusieurs reprises du ma wax ci dossier bi mais pour wane li tàngal xolom te am na ci droit expliqué na ni euh, mbiru conditions yi ñu ko jàppee maanaam muy dem di réparer otoom di changer pneu ñu fekk ko ci mbedd bi jël ko metti na ko ndax citoyen sénégalais waruñu ko traité noonu surtout police bi nga xam ñun ñoo leen di fay bu weer dee loolu condition d'arrestation la ku jàngul droit sax xam nga ne loolu du dossier bi parce que juge bu la nee dossier mooy bi ma bi nga ñëwee bi ñu la arrêté ba nga jaar foofu yëpp ba ñëw ci man ba ñu inculpé la dossier bi nga xam ne laaj nañ la ci question loolu mooy dossier bi d' arrestation procureur jàpp ne loolu la c' est faux mu ci condition d' procureur wax na aussi euh, mbirum euh, directeur général police am na li ci Pape Alé bind ci post Facebook am te wax na ko aussi maanaam Euh, tudd tuddul turam mel na ni bu bàyyee sa njaboot yëpp ñu dem bitim réew yow mel na ni yéen xam ngeen li xew wala li nar a xew maanaam dëkk bi maanaam da ngeen ko nar a taal te bëggu leen seen njaboot bokk ci seen njaboot duñ ko fekkee loolu su ko waxee euh, bu naqadee procureur procureur amul sañ-sañ ni juge bi dellool delloo ko kaso déedéet benn procureur amul sañ-sañ procureur am na sañ-sañ nag ci article 171 bindaat réquisitoire ni sa ji li mu wax garaaw na garaaw bi nga xam ni comme dafay atteindre morale des troupes maanaam takk der yi topp ci directeur police comme loolu naq dina leen ce qui est à voir parce que man loolu gisuma nit ku normal nan la loolu naq de bu dee loolu naq na leen procureur am na sañ-sañ def réquisitoire bu bees di ko topp ko ci mbir mi. juge bi topp wala bu jël beneen juge loolu mën na am mais Kanta wax na lu naqadi kii jàpp ko dugalaat ko ci mbaam bi loolu moom dafa doy waar moo tax am nañu lu ñu metti trop daañ ko yóbbu nag cour euh, chambre d'accusation incha allah nga xam ne mooy juge d'appel de toutes les ordonnances du juge d'instruction mën na am ñu jox ñu àtte bu baax Pape Alé nag comme dañ ko inculpé rek waxuñu moo def lii moo def laa il est présumé innocent maanaam ba tey kenn waxul lu ndax dañ ko condamné wala dañ ko kii donc fu mu nekk innocent la te dafa nekk ci instruction yoon may na ko à tout moment à tout stade de l'instruction mu demander liberté provisoire donc euh, tey tey tey parce que xamaguñu adresse précise am ndax Rebeuss la wala Sébikotane mais dès demain incha allah daañu demande liberté provisoire bu bees parce que demande bi ñu euh, déposé woon mais bi ñu déposé ci la procureur bi mu ci moom ci la tontu ñu bàyyi ko donc mën na am loolu tam amaat mu nekk nag avertissement moom moment bi jot na peut-être mu noppi bañ wax mais tam nit ki nga ne ko tam doo wax xam ne comme on dit kuy waddoo làmmiñ boo boo raflee boo boo noppee da nga raflee xam nga dafa xew doy aussi te loolu dafa am liberté d'expression citoyen bu nekk am nga droit wax sa xalaat mais daal ñu jàpp ni euh, am nañu njàqare donc actrice ci loolu parce que liñ ko reproché amul juge bi mënoon na bañ su bañee tam mënoon nañ dem ba bracelet sax li la moo tax ñu prévoir ko Sénégal dépensé na milliards yu bare pour bracelet électronique alal bi nga xam bu ñu ko dogaloon ci prison yi jënd ci ay matériels yu bees liggéeyaat prison yi mën nañ sax am prison yu bees wala rénover prison yi changer régime alimentaire bi def détenu yi ci moom kii yu gën a baax bracelet dalañ ko def bracelet na gisaguñu benn citoyen sénégalais bu ko takk c'était une bonne occasion pour un contrôle judiciaire bu ñu révoqué après six jours je pense ñu joxoon ko chance boobu parce que Pape mu génnee ci détention bi wax dëgg yàlla wér-gu-yaramam demeewul ni mu war a demee démb rek mu ngi woon en clinique dem defi ay analyse ay échographie euh, dënn bi biir bi et cetera ku mel noonu parce que c'est pas judicieux c'est même pas humain ku koy delloo prison quoi parce que xam nga ni lu ne mën na jàpp Pape Ali ku ko xamul tam xam nga ni bañkat la te nitu conviction la aussi euh, yàlla tere mais bu nekkaatee ci